Ah, Rota. Ah. Music. Modem chidunia giswahale buireve don darasumake. Ni president, ni commissaire, ni traitor. Why am I so much choice more don't don't why you get to make a chibet Uma tokti wai Chika kile Mane kenao Kodem chiduni agis Fakhale kulebe saka jama kaja bila je wala jasa poli makuri mm-hmm. lori walori fasa kumasa kumsa birema namza to mm-hmm. ichi abai bai mm-hmm. aya nangu aya nangu te eh, yow ah yaa ngi doon ngoro. na ma lay geng. ah ah booy amul ragal. waaw ah ah, ah, ah eh, yow mi. ñoom bu ñu solul tubay rek ba mu ne ñàpp seen yaram bi bu wane seen awra yi rek duñ am lu leen neex. salaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum salaam. bilaaxe di wax suñu séeri rek. ah, ah suñu séeri waaw. sëñ eh, la kaa toogee nii. toogal gerte tey may naa la ko. ah ah kon wax na. waaye yéen doxe ngeen naan. waaw danoo génnoon. foo leen demoon. kii booy séeréer bi laa doon gunge. que fee lañ demoon ci ma jëy. dañoo demoon ci ah. waaw ma jee dama koo gëj gis sax mu ngi fi mbaa mu ngi si jàmm bu baax mu ngi si jàmm bu eh, baax eh, maa ngi jégalu waaye da ngeen na doxa doxa lu mu def lan lay waxee eh, ay ay borom jaal lan la ci waxee loolu oh. ah taala nag yow taala oh, bi li ma la expliqué bugul coow quoi oh. coow day yàq hmm? voilà ma ne nijaay sa kawas yi mënoon nga ko simbi nag waaw waaw dinaa ko simbi di ko doxa si mbedd mi dañ lay yëpp rek naan xoolal lii rafet na lii rafet na ah. sa caay gi su ma saasel la nga bañ a saasel yaa ngi kalaate saasel nga bañ a saasel bébé léegi xoolal ah, bébé reetaanal nag suñu ah. tey nag dañoo ñëwoon quoi pour bëgg a waxtaan ak yow quoi mbaa jàmm rek kese xam nga ne ñun duñ lu dul jàmm nag waaw waaw loolu moom loolu a ma ay waay ay waay. Eh. bëgg gi na. ay ah, dara man la xamul ay paa yi jooy kay. non bul jooy séeri eh, booy bul jooy. jooy eh, yow lala. waaye xanaa amoo xol li mu wax kay ku ko dégg boo amee xol di nga jooy. am nga la daaxal jooy ñetti téeméeri junni yaa dégg li ma la wax rek dégg. waaw dégg léegi waxtaan bi waxal wax ko. comme que da ngeen maa soxla papa la papa man. kan So gi xanaa soo tot nga xam day mandi booy li car la car yi fi mu ak gi neex ma papa ah kon kon woo ko biberon waa yegg nga xamante ak yaay mag papa kii nu mu bëggee néeg biberon mii eh, mag papa mag yaay waa na loolu eh, eh eh eh booy da ngaa da ngaa rew de dégg sa daal yi nga yëg ci kaw basan pour lan la yow tontoo taala xanaa jëndu aya booy mu ñal tey moom lu def mu ñal rek mu ñal booy dama gaañ nga mu ñal mu ñal booy mu ñal yow li ngay wax tamit dafa bëri trop yéen tamit bëri ngeen wax de papa lii tamit lii lu mu doon lii sa kaña gi tuuti def mu génn kon kii la moo xew temps yi oh booy booy xoolal ñun ngay get waaw voilà déglu te à parole lan mooy ci ala la parole waxal waxal nga ñun moom ay ki lan waaw waxal kii bi li ñu ñun dañoo kii woon bi bin kiiwee après kii xam nga kii da doon tak ñaareel ci kii bi ah papa ah. la franchement parler kontaan naa trop tonton ah, Talla ah, ñaareel moom lu baax la yàlla santaane na benn ñaar ñett ba ñeent ya, si boobu yow nekkul man de kan la booy séeréer mooy takk ñaare boo séeréer. ci àdduna day bëgg képp. kon booy séeréer waajoo de. la ilaha illallah sa lex ñi na day yow duma ci wax. yow booy séeréer. yaboo ma benn yoon te doo ma ñaari yoon. xool ma bu baax eh, laa la wax. ay booy séeréer laa la ma laa wax. yow lan lan lan nga gis si yeneen jigéen ñi Pape ci gisoo ko man man aw buuru këram. ma mën booram mun fu neem ñu ma jamono yu bàyyi nañ ma xel te képar gu fexlo xalé gu fa taxaw ku la ndeer won ma né eh, eh, eh. won ma né la la wax parce que lolu du dara ah, ñun dañu ñew di la laaj rek eh wax jaa bëgg bari ki kii ma laxas ko ci risla bi tuxu mu jeex yeen la moy seen problème yow amoo lu du sa benn ah, chaay duma kaal nak bo may tuxu nak noppil séeri bal ma yow duma la bal baal mënuma la jëlé dëkk ba andi la sali fi fi nga tegoon ko bitim réew ba nga ñëwé fi nga tégon bitim réew ba nga ñëwé nga ñëw ñam coof ñam rëg-rëg ñam lépp eh, commencé reew di déconné eh, su ma la eh, dugalee ci néeg bi ba fat la ba def la lu ma la doon def yow xam nga ma kenn du la wax bu ma naa la ko nag sa bëti yi yow yow nijaay yow lan la ko nan toog arrangé nan toog arrangé ñu arrangé ci biti laa la ngay tax waaye yow yéen ci biti moo lay dugal loolu dugg rek moo la ci dugal te moom sañ ta def dara amul benn bay am ñaar boo xuma yow yow génnal seen taay yu bon yi moo tax ma ma ko wékk nag na lu ma def dërëm mu naa yow sama noonu nan nan laa nekkee sa noonu nan laa nekkee sa noonu xanaa waxuma la nga de bëgg nga rek yow ngay wax loo xam ne am na am na njëriñ waaye yaa ngi may provoqué ma tak ñaareel waaw ma ñuy wax ko ma ñaareel laa bon ñaareel laa kaw ma ne ñaareel laa bon nga amoo loo def lu dul ngay jooy jooy lu jooyoo da nga jooy jooyu saytaane nga jooy to gis nga yow bu ma deewee buñ may tagge nañu bin taala noon ci ku gaañu yow sama noon nga loolu moom xam naa ko olof nag lii la ñuy wax ci moom bu nekkee di ngeen di ànd rek mu lay jéema nax di la naxtaan di la dugal di la gasal ay kamb man nag balaa nga maa gasal kamb ah man ma diigal la. Eh, may ma sama jàmm naa balaa maa ma diigal la to après sorti la mes yow. waaw ñooy ànd génn dañoo génn ñun ñaar ñëpp ñooy ànd man sama problème mën naa koo arrangé. nana ànd génn rek. génnal kër gi nga jiitu ma topp sa ginnaaw yaa moom kër gi eh, eh, man man bu ma namee jiitu yàlla naa dee yow yaa jiitu ma topp sa ginnaaw xanaa dañ laa jox ay galaaj moo tax nga eh, nan ko def njabootu kanaara yaa jiitu ma topp sa ginnaaw ma waxaate kinaara man noq la de waaw léegi nan ko def njabootu ni yaaxal sa buntu yaaxal buntu yaaxal sa buntu xam nga sama buntu yow amoo buntu yaa mën a am noq ma ne Eh, ma demon masla ak mom sax wa waa jeri koko tay da merde tay koko mandari ah rota music musique dem ci duniyaa gi soo xale buy rêvé do dara suma ke ni president ni commissaire, ni traité. waaye man sama choice moo doon doon waykat di bégal di bégal fu ma toog di way gi leen ma nekk ndaw